الحمد لله الكريم سلمنا على استفادي بفرود وسنن mi nga xam ne jamono ji mooy xalifa waa kër borom Daarul Mooti maam Thierno Birahim kilifa yu takku ñëwoon fii ci Touba ci ajuma ji dëppoog le 12 février 2021 doon ziyaare si sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru xalifa général des mourides ni nga xam ne noonu la ko yoonu murit baaxoo ziyaare si ki fi nekkal sëriñ Touba daal di lu jébbalaale ko mbooleem njaboot gi yépp loole la sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang def ànd kook mbooleem kilifay Daarul Muxti yi bi ñu agsee sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xuddus mi nga xam ne moo yor kàdduy njabootuk boroom Daarul Muxti gi ginnaaw bu mu présenté mbooleem délégation bi yëkkati na fa ay kàddu ci turu sëriñ bi ñu nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di la ziyaara mm, mu mel ne mm, borom Daaru Muxti mu jël tànkam fekk si Sëriñ Tuuba mm, ziyaara boobe foofu la ko teg te uh, di sàkku yit nga nangule ko ko noonee di la seedeel na la mboolem ñi mu bokkal borom Daaru Muxti ñëpp bunti kër yëpp jox nañ ko seen bopp ni nga xam ne moom la yoon wi baaxoo mooy jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira nee na noonu ñu ko defee nag wëlbatiku na defaat ko ci yow noonu wax la la nga xam ne moom la ñëppi wax mooy jëbbal na la boppam jëbbal la njabootu borom Daaru Muxti gépp ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li war euh, xat na sax waaye dafa wax ne ndegam ñëpp a ngi ñëw ci yow di def noonu la baax yow itam nga dem def ko fa nga ko war a def mooy tax sam xel ma a dal loolu rek moo tax fan yépp mu xawoon na yàkkamtee ñëw waaye xam na ne xataa yi ak euh, fatu gi waaye rek nangul gi nga ko nangul loolu rek am na lu muy wane wane na la fi nekkoon rek moo fi nekk ba tey nee na nag ñëpp daal na nga leen faggul li nga xam ne moom la wut ci loolu ñu am ko tey ak ëllëg loolu nga ma wax lim li ñu bëgg kenn ku ci ne na ko am ni ko bëggee ci àdduna ak ci àllaaxira tey it Euh, noonu mu wax ne borom Daaru Muhti mu ñëw ci Serigne Touba yaakaar naa ne jataay ba euh, li mu wax ne euh, dëgg la mm, daanaka bunt kër yëpp li ci teew nañu waaye ku ca ku nekk it ci coobareem la ko defee ndax jataay bi nu mu bindoo ak fi jamono toll ci xataay waaye nee na su ko ko yàlla maye may nu ko muñ toogee ba yoon bi yaatu danañu dikki wa dikkin woo xam ne fu waay nekk di doomi borom di di sët ci daaru wala ngay doomi borom daaru moo te wala nga bokk ci kër yu mag yi danañu ànd seen siyaare bopp boo xam ne dañuy xam ne nii la waa Daaru Muxti di a ñëwee ci kër Serigne Touba loolu nag dañuy ñaan rek dégg nga ñaan yàlla sunu borom yoon wi yomb ba loola man a am. ñoo koy ñaan. Mm. ndax bu ko neexee kat dañ dañ ko mm. mm-hmm. na dafa am loo xam ne la koy sas moom bu ko sañee wax oh. dafa nee na nee na bu la neexee jàngoro ji li nga xam ne moo tax nu ñëpp nu mm-hmm. ub suñ gimiñ yeeg suñ bakkan yi mm-hmm. kenn ko ne masqué ko nee na <laughs> nga ñaan ci barke sëriñ bi daal nee na mu jóge fii ba faw waaw te it na gëm na ne moom loolu lu mën a nekk la ko yàlla def baax na nee loolu daal moo doonoon yoon wi ngir xamal ne daal dikk na ngir jëbbal si la boppam ak njabootu borom daaru muuti gépp te nga nangul nu ko ginnaaw boo ko mooy li nga xam ne mooy li am waaw ñaan ba nga xam ne itam nag nii mu ko bëggee bis buñ jógaatee euh, kenn du des waaw gàllankoor yëpp jóge fi yoon bi yaatu ñu mën a ñëw ñu xam ne lii mooy li taxaw muy taxaw yoon wi te nii rek la ginnaaw kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khoudous yi nga xam ne yëkkati na ko ci tuuru sëriñ Bassirou Mbacke Anta Niang Serigne Mountakha Mbacke Bassirou yëkkati nay kàddu santaat leen gërëm leen waaye rafetlu tànk yi nga xam ne yëkkati nañ ko bàyyeekoo ca Daarul Muhti ñëw fii ci Touba mu nekk lool kawe na ci moom lool waaye ñaanal xalifa bi di sëriñ basiiru Mbacke Anta Niang mu yàgg fi lool ñu ànd liggéeyal Serigne Touba. alhamdulilah rabbil sant bu baax a baax bi day wax alhamdulilah rabbil alamin mu ne sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. mu sant sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. di sant bi sunu lépp tey ak ëllëg. di sant bi mi sunu lépp tey ak ëllëg. ñoo ngi sant bu baax ci yëg nga xam ne eh, gis naa ko ci. Cheikh Mouhamadou Bachir mii ak ñi bokk bu baax yi mu àndal. mu ne mi ngi sant bu baax. ci yëg gi nga xam ne gis na ko ci Cheikh Mouhamadou Bachir mii. ak bokk yi mu àndal. xam na ne dañoo delloo lépp ci diggante sëriñ bi ak maam Thierno rek. nee na xam na ne dañoo lépp rek ci diggante bi ak maam Thierno. loolu nag noonu rek la mën a demee. fi ñoom noonu rek la mën a demee fi man. mais loolu nag noonu rek la mën a demee fi ñoom. noonu rek la mën a demee fi moom itam moom loolu alhamdulilah rabbil alamin euh, ñun ñëpp loolu moo nekk ci ñun muy sëriñ bi. nee na loolu alhamdulilah rabbil alamin ñun ñëpp loolu moo nekk fi ñun sëriñ bi. kon euh, noo ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax a nee na kon mi ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax. di gën a. yeesal sama jaayante di leen ko seereel di ko seereel muy gën a yeesal ak jaayanteem te di ko seereel hmm. di gën a dëgër li sama laxasaay fas yéene ko ànd ak yéen sax dakk ci li nu fi li nekkoon nun ñëpp muy jaamu yàlla liggéeyal sëriñ bi rek mais ne gës ak ànd ak xam ne naka jëkk mooy jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi hmm. delloo suñu xel ci maam Thierno rek. nee na loolu nag bu ñu delloo suñu xel ci maam Thierno. mu mu doy mu doy sëkk. mu doy sëkk. danaa koy wax. danaa koy wax. nee na dana koy wax. sëriñ bi moom moom xel xel xel jëlul xel di ci di di di di ne sëriñ bi moom jërul xel di ca dem. waaye maam maam Thierno mooy ki nga xam ne. waaye maam Thierno mooy ki nga xam ne. doy na lépp. doy nañu lépp. lu nu bëgg ci sëriñ bi rek. lu nu bëgg ci sëriñ bi. ak lu nu ci lu ci ak lu nu ciy wut. ak lu nu ciy wut. Euh, maam Thierno doy nañu ci sëkk. nee na maam Thierno doy nañu ci sëkk. moom moo dox ki nga xam mooy ki nga xam ne moo dox suñu diggante ak sëriñ bi. nee moom mooy ki nga xam ne moo dox suñu diggante ak sëriñ bi. bëgg ci noonu. ndax li ci noonu. da koo tënk ci maam Thierno. da koo tënk ci maam Thierno. kon moom rek nee na kon maam Thierno rek. mooy moo moo moo moom rek la su xol suñu xol moom la moom lay gis. nee kon maam rek suñu xol di suñu suñu suñu bët di jàkkaarloog moom. suñuy bët di jàkkaarloog moom. suñu yitte ñu delloo ko ci. suñu yitte yëpp ñu jublu gépp ñu delloo ko ci moom. suñu jublu gépp ñu delloo ko ci moom. mooy moom moo war a doon suñu lépp. nee moom moo war a doon suñu lépp. ndax ci la ci ci li sëñ bi bëgg ci noonu. ndax li sëriñ bëgg ci moom. da koo tënk ci sëriñ ci maam Thierno. da koo tënk ci maam Thierno. loolu man xam moom alhamdulilah rabbil alamin. Eh, loolu moom alhamdulilah am na xa teel na ma am tawfiqam. nee na teel na am tawfiqam. Eh, yaakaar naa ne Cheikh Mahamadou Bachir mii. nee na yaakaar naa ne Cheikh Mahamadou Bachir mii ñàkkul lu mu xam ci ma sama diggante ak maam Thierno. lépp lu mu xam ci diggante maam Thierno. déedéet eh, ñàkkul. ñàkkul ñàkkul lu mu xam ci lu mu xam ci diggante. sëñ sëñ Bass xam na diggante sëñ Mountakha ak maam Thierno. ñàkkul lu mu ci xam. ñàkkul lu mu ci xam ndax te loolu mooy kon danañ ci waxtaan. Ah, ah. dañuy wedd ci waxtaan loolu kon lu mu ci xam. ñàkkul lu ci xam ndax eh, am na lu ma lu ma tënkoon ci sama taabirub sama xalaati bopp rek loo xam ne noonu nii ma ko waxee noonu noonu noonu laa ko tënkee. nee na daa tënkoon ci ay xalaati bopp mm-hmm. yoo xam ne lii mu wax nii mm-hmm. noonu la tënkee xalaat yooyu. noonu rek laa ko tënkee. noonu noonu rek man mënumaa wax. Eh, seen jéego yii ak seen jataay bi mënu ma ko wax mënu ma wax na mu toll ci man. nee na kon seen jataay bi ak seen jéego yii mënta wax ci làmmiñam di mu toll ci xolam. waaye nag yàlla moom mi ko def xam na ko waaye moom yàlla mi ko def nag xam na sëñ Tuubaa mi tax mu def ko it xam na ko sëñ Tuubaa mi tax mu def ko it xam na waaye nag maa ngi leen ko seeral man it sama kam kattan nee na waaye mi ngi leen ko seeral kam kattanam ngeen xam ne seen jéego yii ngeen xam ne seen jéego yii ngeen jógee daaru daaru moxti ba fii ngeen jógee daaru moxti ba fii ak seen jataay bii ak jataay bii lu rëy ci man la nee na lu rëy ci moom la lenn mënatu la mën a mën a mën a mënatu ko kawe ci man nee na dara mënatu ko kawe ci moom ndax ndax mooy li nga xam ne ndax mooy li nga xam ne moom moom moom moom moom moom soññ. moo koy soññ li ma tax a jóg. li ko tax a jóg. seen seen seen jëf ji. seen jëf ji moom rek moo ci moo moo amul amul benn soññ bu ko bu jiitu boo mën a soññ sama bopp bu jiitu seen jataay bi ak seen. jëf amul benn soññ bu mën a jiitu. bu mën a soññee boppam du jiitu seen jotaay bii. lool rek mooy li mooy mooy dëgg ci man. loolu rek mooy li dëgg ci moom. kon jërë ngeen jëf. nee jërë ngeen jëf. Eh, gis gis naa jëf ji bu baax a baax. nee a baax. fa tabaarakallaahu rëy na ci man lool. fa tabaarakallaahu na ci moom lool. te dëgg ci man. te muy dëgg ci moom. loolu du ko seeral kudul suñu borom mi nga xam ne moo ko def. nee na du ko kudul suñu borom mi nga xam ne moo ko def. mi nga xam ne moo mu def ko. ak Serigne xam ne moo tax mu def ko. di leen ko la demee ci man. di leen ko seeral yéen itam ngeen xam ne nii ma ko waxee rek ci man. ak jéego yi ngeen dox ba ak si fii ak jataay bi loolu wéy na ci man loolu. dara dara dara mënu ko gawe ci man. parce que bi ngeen jógee Darou Mouhty jataay bi. nee réy na ci moom lool. dara mënu ko féete kaw dara benn amul benn yaakaar itam boo xam ne mën naa tegu ci kawam. nee benn yaakaar boo xam ne mën naa tegu ci kawam. te li ma li nga li nga xam ne moo tax di dund. nga xam ne moo ko tax a jóg di dara loo xam ne benn yaakaar boo xam ne ëpp na ci man ëpp ëpp na yaakaar ji ma am ci yéen ci ci yitte ji amul amu amu ko. mu amul jànn yaakaar yoo xam ne. na yaakaar ci yaakaar ji mu am ci ci seen yitte ji. kon du ma wax na loolu moom gàtt na ci. nee na de xeeb na ci sama sedd na. waaye sama xel dal na bu baax a baax. waaye nee na eh, eh, soññu gi war ci ci man. na soññ am na ko ci jëf ji. mooy li ci am eh, eh, cig fàttali sëriñ bi dafa fatu woon waaye ki nga xam ne moom moo di sëriñ Basiru Anta Ñang yàgg a sàkku ñëw ziare si ko jébbal ko njabootug borom daarul mu ati gépp loolee nag sëriñ bi nangul ko ko ndax dafa bokk ci yoonu murit képp koo xam ne doon nga xalifa ñëw ci ki fi nekkal sëriñ Touba daal di yeeslu ci moom jëbbal ko njaboot gi yépp sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ nag moo nekk jamono bi xalifa borom Daarul Muxti ginnaaw bi fi sëriñ Abbas bàyyeekoo ci 31 décembre 2020 bi ñu koy ñaanalaat yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool te ànd ak wér li sadinatan bi kun bi kun lil janna min daari minan yaatal minna alhamdulilah alkarimi silmilan ala stihali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xat sahani liwatani bi nafa